dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb daan dalal ganam gii di Erdogan di njiitu réewam turki yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xam naan ñu lu dox ci diggante jëflante réewum turki ak Sénégal ni ki démb nag daan nañu koy gën a dëggalaata lu jëm ci wàllum échange commerciaux ñaari réew yi nag daan nañuy teg seen bët ci lu toll ci 596 milliards journal bii de la Turbine mu ñu xamal naan ñu relation wala jëflante diggante Turquie ak Sénégal lu toll ci milliards yu dollars la ñu nag daal di bàyyi xel journal bi mu ñu xamal naan ñu lu toll si juróom-ñaar ci ay accord yoo xam ne daat nañu koy signé laas yéenekaay yi mu ñu xamal naan ñu lu jëm ci wàllum fer bi maanaam weñ gi Sénégal daan na koy jox ñi nga xam ne ñooy waa Turquie journal bi mu ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb ginnaaw bi ma amal ab conférence presse moom ak njiitul Turquie di Erdogan Erdogan daat nay wax ne lu toll si junni ak juróomi téeméer ci ay sénégalais yoo xamante ni defaral nañ leen ay këyit yu jaar yoon cër mooma leen réew a ñu xamal naan ñu njiitu mi di président président Macky Sall moom nag lëngoo gi nga xam ne dox na diggante Sénégal ak réewum Turquie daan na ci kontaan dëgg te ni ki démb nag daat na kay wane wanewaata waa Turquie nag gën a dugal seen loxo jamono ji ci biir senegal yéen kaay gi du Sud Quotidien mu ñu xamal naa ñu njiitu réew mi di Macky Sall ak Erdogan ñoom nag daat nañuy fas yéene dugal seen loxo maanaam médiation si crise bi nga xam ne moo am ca réewum Libye yéen kaay gi di réew mi Quotidien ak waa Grand Place mu xëy di ñu xamal naa ñu beneenub taalibe boo xam ne dañu ko dóor ba mu ñàkk bakkanam ca Linguère muy bu Fallou ki nga xam ne nag moom lañ jàpp ne moo def jooju la jëf jëf ju ñaaw di Maguette Diop moom nag ak nga xam ne mooy responsable lu joojale daara ñoom ñëpp nag daat nañ leen di defeere journal bi di waa Grand Place mu ñu xamalaan ñu sëriñu daara yi yenn si ñoom nag dañuy def lu ne weng te maanaam dara du leen ca fekk waaye nag jamono ji askan bi daal ñoom ñoo ngi sàkku yoon daal di say tëddee njaaxaanaay yéenekaay gii di Libération mu ñu xamal ñu nag bu ñu waxantee mi kenn ku nekk am na ci wàll Fallou Diop mi nga xamante ni dañu koo dóor ba nga xamante ni nag ba dafay jéggi jàll ka nga xam ne nag moo def lu ni mel ginnaaw bi mu ko dóoree dafa dem añi bi mu dikkee nag la daal di yëg ne faatu na bi ñu ko xaymaa ci atum lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay taalibe yoo xam ne ñii dóor nañ leen ba ñu daal di faatu ñii nag daal nañ leen di sababtal wala ñu nag def ay violence ci seen kaw ba ñu mujjee faatu journal bi di Vox Populi mu ñu xamal nañu Fallou Diop mi nga xam ne rey nañ ko ci benn daara ca Linguère mbir mi nag dimanche bi nga xam ne la ñu génn ba nag deux heures di jot la loolee daal di am journal bi nee na ay atam toll fukki at ak joojee ñu koy tuumal di Maguette Diop ay atam toll ci fukk ak juróom ka xam ne nag mooy responsable joojale daara jamono ji daan nañ koy teg loxo journal bii di Libération ak réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu étudiants yi jamono ji daan ñuy dugal seen loxo nag ci xeex bi ngir nag Guy Marius Sagna ñu daal di koy bàyyi Guy Marius saña mi nekk ci kasu bi moom nag la mu xamle nee na nag nguur gi bu dee nag dañoo jàpp ne daal buñ ma dugalee si kasu bi dañ may noppiloo wala ñu nak ñu tiital ma loole nag mooy ñàkk xam dëgg ndax nag amul benn yoon boo xamante naal xeex bi ñu sumb danañu ci deltu ginnaaw ci les échos Guy Marius Sagna ay terroriste na lool ak mbirum terrorisme yéen a kaay gii di 24 heures mu ñu xamal lan ñu bëri na ay ministre ak ay ne daal jiite nañu ay yoo xam ne jamono ji nag ñoo ngi complot Macky di ko tegal ay ndëgg sërëx Matar Diop nekk nag au conseil des collectivités territoriales nekk responsable APR moo ko xamle ci biir journal bi yéen gii di source a mu xëy di ñu xamal nañu nag ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom nag mbaadu nag guichet automatique la ci wax lu dul dëgg ndax waxoon na fi ne lu toll ci fukk ci ay millions la jox ñi nga xam ne ñoo bokk ci dialogue national bi te loolee France dali xëdde waxoon na fi ñaari milliards la jox chef de l'opposition bi ngir nag noppiloo leen ci lu jëm ci scandale pétrole ak gaz bu Sénégal wax na fi ne Makhtar Cissé dafa am nationalité britannique te loole nag andiw ci yenn firnde ginnaaw loolee nag Cheikh Kanté tëjoon ko fi ci lu jëm nag ci waxal ko lu dul dëgg a xëy a kaay quotidien mu ñu xamal ñu sénégalais yi nga xamante ni nag maanaam ñoo nekk ca diiwaanu Chine Sénégal ma ngi def ay dëbbal dëbbal ngir nag andi leen ci réew mi yéen kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal am na nag ab gang boo xamante nañ koy daaneel ay sàmb sura yoo xam ne ay doomu réewum Nigéria lañ ca yëmbal la mbir mi xewee yéen kaay gi mu ñu xamal nañu drogue bu bari boo xam ne jàppaat nañ ko si sunu waax yi waaye nag bato bi nga xam ne fa lañ ko fekk mooy la grande Nigéria bato boobee nag ci ay ay bés ci ginnaaw jàppoon nañ fa drogue bu baree bari ndeke nga woon ca suufu nag bato boobee police scientifique moo ko daal di teg loxo yéenekaay gi mu ñu xamal naan ñu giir maldi gi nga xamante ni ñoom la ñu tuumaaloon ci mbirum drogue ñooñe nag la ñu fekkaat ca seen bato boobee drogue bu bari boo xam ne bi ñu ko xaymaa toll na ci cent vingt kilos ko pari toll ci dix milliards ña nga xamante nag ñoo nekkoon ca googale bato yépp daat nañ leen di teg ab garde à vue yéenekaay gi di source a xëy nag daal di dikk ci nag lu jëm ci mbiri Lamine Diack mi nga xam ne dafa jàpp nag ne justice française bi dañu koo daal di tongal maanaam dañu koo daal di singali Dakar Times suñu fekk fa waa forum justiciable ñoom jàpp nañ ne atteb Lamine jaag bi ab complot la yéenekaay gii di Les Échos dikkal ñu si njóoba sekk mi nga xamante ni moom lañu ñu reyoon fan yi ñu génn ci banlieue bu Ndakaaru ki nga xamante ni nag maanaam nekkoon na ab copain moom jamono ji moom la ñuy wër ndax nag ñaari numérom yépp ñoo ngi ko si woo nag te jotuñu ko journal bi nee na maanaam ñoo ngi koy wër bu baax a baax ubbi ci enquête journal bi di suñu làmb mu xëy nag di ñu xamal naa ñu Boy Niang 2 ngir mu bëri ak Balla Gaye 2 soo muy tuulee du yomb ndax ab promoteur daan na koy proposé cinquante millions mu lànk ba tëdd wa